ginnaaw bi ñu wooree ba noppi ndax daa war a am jeexantal yum fi bàyyi ma ko doon lim tàmbalee ci seexlu alal li jàmbar yi fa la tàmbalee bu ñaaral ba lu wàllu lu jëm ci wàllu commission yi nga xam ne ñuy seen tuweer wi bu ñetteel ba mooy ñu bàyyi bëtt tey jaar ci port ñu bàyyi fenêtre yi tey jaay jaar ci port yi waxin la ci ku soxla ci barab demal ca kilifa ga moo gën di intermédiaire ndax yooyu yàq na pinc mi léegi ma doon tàmbali ci bind bi ñu weesu waqaatilu fi sabilillah rikwaay rikwaay def leen seen énergie seen dooleeg seen kàttan ci lu fi sampal yàlla lim bëgg mu sampe waaw lu jagal pénc mi pénc mi jag ci ñi ko dëkke waaye ñu def ba pénc mi jag ci ku bëgg jàng-jàng ñu fexe ba pénc mi jag ci ku bëgg faju-faju ñu fexe ba pénc mi ak tooñ jóg fii wala taatadu ndax inna allah la yuhibbul mu'tadin foofu lañ tegoon suñ baram ci bind bi weesu waaw tabaarakallah sunu borom daal di indi beneen tomb boo xam ne bi koor daf ko war a bàyyi ci nun mooy lan jële ci pénc mi fitna ku woor ba noppi dangay mën a moytu fitna te fitna euh, oustaz Pape Hann <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér nee fitna mooy xaw a dee nee fitna mooy xaw a dee ndax nee na dee méttiwut xaw a moo métti waaw piir maam sala la <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér mu ne dee méttiwut ñu ne ko lu métti mu ne xaw a dee yàlla daa bëgg bi ñu wooree ba noppi xam nga koor gi ñëpp a lewetoon kurpañ yi bari wutoon xanaa sëfoor yi ci tali bi xatum tali bi moom léeg la nga séen koo xam ne ki ndeysaan day fàtte ne daa woor waaye fitna yi ci penc mi ñu fexe ba fitna jóge fii ndax réew mi dund ci fitna ay moromam lañ koy raw fitna mooy jàmm ju ëpp jàmm ju ëpp yàlla ñu yàlla musul ci fitna te sunu borom wax nañ ci alxuraan fitna su jógee du yem ci ki ko sooke déedéet ndax sunu mbokkum daara Oustaz Ahmed Dame Ndiaye mooy wax ni dafa am loi dox fii ci àdduna ak loi yu dox ëllëg ñu ne ko loi dox fii lum mu doon mu ne loi yuy dox fii mooy ay du yem ci bopp borom mooy dox àdduna ñu ko àllaaxira nag ñu ne àlla la fay dox mooy ay du weesu bopp borom fii ay du yem ci bopp borom fële ay du weesu bopp borom mu ne bu ci nekk nag laay ci alxuraan bu dee ci àdduna fii wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xaassa moytu leen fitna ndax fitna du yem ci bopp borom ñu ne ko awlu di leer na mu ne bu dee fëlee wala taziru waziratun wisra uxra mu leer nañ yal na ko yàlla fayal kon ku war ba noppi danga war di maanaam moytu fitna bul fitnaal kenn te del moytu fitna ndax fitna lu mu tuuti tuuti taal nam pénc léeg nga dégg ñol-ñol ju am ci diggante parti ak morom ja léeg-léeg nga dégg ñol-ñol ju am ci biir parti ci boppam léeg-léeg nga dégg ñol-ñol ci lu tax ñuy def diw tête de nangam ñol-ñol yooyu li ñu koy xeeb-xeeb mën naa bii mel am réew ba du dem waaw mu fàttali leen euh, léebu monsieur Sindax ak madame Sindax dafa xëy jox jabar ji dépense Sindax daa xëy jox jabar ji dépense ne nag ne nag euh, na nga na na nga togg te bul togg supp kànja <laughs> maanaam mu ne jabar ji mu togg supp kànja mu ne ko togg dëgg ndax sama sama moromi jeeg yi tey dañu ne dañuy supp kànja si ndax wax wax jabar ji ne ko supp kànja lay togg xam nga loolu tabarkal wax wax mun ne ko supp kànja lay togg ndax sama je sama moromi jeeg yi ci koñ bi supp kànja lañu togg maak ñoom si ndax ndeysaan bëgg bëgg jàmm ak daw fitna muy wut nu ko jàppale ci këram gi waaw mu dem ci yaayi boroom kër gi waaw meer nogo yi daal koy kalaame ne ko sama jabarkat fii mu jëm ni baaxut ndax fit na lay wut ci kër gi ndax nee naa ko bu mu togg suppa kànja nee na moom lay togg meer ba jànni ko nekk man sama yoon ci xulub si ndax ak jabaram yow daal yaa yabaate si ndax dem ci boroom kër gi wax ko ko mu tontu ko loolu si ndax dem ca xar wax ko ko mu tontu ko loolu mu dem ca fas wax ko ko ko loolu mu dem ca mbaam dem ca nag maanaam moom ñu mu war a seet ñëpp seet na leen kalaame leen ak jabaram kum kalaame rek nga ne ko lu sama yoon ci xeexub si ndax waaye jógal fi waayu yabaate ngeen ndeysaan si ndax nag door jël décision léegi bu jabar ji ñëwee bu fi toggee suppa kànja tabarkalla lu mu dégg mooma ba añ jot dem si ndax indi suppa ja taaj jëkkër ja jàpp ko mu jàpp ko jëkkër ja pes ko mu pes ko ñu ràbbaloo ñoom ñaar ca kaw pujub néeg ba ne ca kaw daal ba dër daanu ca taal ba waaw aw xal fettax ca taal ba dal ca lalum meer ba taal mat la ba taal néeg ba meer ba daal di gaañu ca ca lakk ga meer ba daal di gaañu ca lakk ga ñoom si ndax daw nañ ba yéegi ci beneen kii continuer seen xeex waaye daal bañ dalee ca fo bañ dalee ca ànd wa xalwat fa tax dal ca xal ya fee tax dal ca kaw lalu meer ba lal ba lakk lëkkaali néeg ba meer ba diya aha fitna ja tàmbali na te sunu boroom noon na laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaassa fitna du yem ci ñu ko taal waaw wax na dëgg fitna ja jóge na ca ñaari si ndax ya rey na meer bi taal na néegam waaw boroom kër gi tabarkàlla jaaxle lool te lii manoon manoon manoon na ko fanq waaye jéemu ko xanaa jànni si ndax rek waaw ah lu ciy pexe ñu ne nañ jël xar dëjale ko meer bi fitnay xeexu si ndax bi taal na néeg meer bi rey na meer bi tax na ñu jël xar rendi ko ngir dëjale ko meer bi daa di yewwi mbaam pour taxane ji waaw yewwi mbaam pour taxani ca Cilmaxambaakol daa di yewi fas dawal pour tàgge ji yewi fas dawal pour tàgge ji gis nga xeexu si ndax boobu mbokk yi ni mu faagaagale kër gi néeg bi tàkk na meer bi faatu na xar dee na mbaam taxani na fas tàgge ji na loolu kenn mësu koo gis te xeexob si ndax la moo tax saa bu déggee danga ko fanaanal diggante parti ak parti solal saw dàll saa boo déggee danga ko fanaanal diggante biir parti ci seen mbopp solal saw dàll yàlla ne ku woor ba noppi ku dem daa war di raat ci jàmm rek tabarkal ku dem daa di raat ci jàmm rek tabarkal la moo tax maam Sëriñ Tuubaa tudde ko xayra dayfin yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi isaan xasida ak sunu mbokk Ablaye Seck mi nu yëkkatil di ndeysaan bu ñu demee ca conférence ba waaw ca ñoom njawa isaan lu am solo la kon nag ku jóge ci weeru koor tem bàyyee la leçon yu mokk duutoo taal fitna doo fekke fitna juy tàkk te tënkoom do xëpp ca sunu borom ba tey ci impact yi koor war def ci ñun mooy alxisaas alxisaas mooy ñuy fayul ñiñ tooñ yàlla nee na bu koor gi mokkee da ngeen mën a fayul ko ñu tooñ ndax ñaar buñ jotee rek am na ku tooñ ki tooñ nañ ko yëgal ne yaa tooñ ki ñu tooñ yëgal ne ko dañ laa tooñ jàmm na ñooy waaye bu fekkee kum neex tooñ te sa tooñ gi du mujj fenn day mu jàgg nit ñi fayul seen bopp te fayul sa bopp baaxul ci mpénc ku tooñ rek na yëg na yaa tooñ waaw danay faral di wax nag ni ku def lu ñuy tere te kenn defu la dara loola kenn tereetu ko mu tax fi ne buur feu ci dakaar daanaka kenn tereetu ko waaw benn rond benn rond ñëw rond bi au lieu nga jaar fa nga war a jaar déedéet nga xaaj rond bi nit ñaa ngi koy def léegi waaw nett naa ci sëñ bakk si la bu bu doy waar bu ma daloon ci ci ci rompoint point boobu nekk ci station bi waaw bala ngay si Seras waaw booy tolloog jumaay docteur Ahmed Lo rond boobu nga xam ne gars yi jëm Cambérène fa la ñuy jaar ñu jëm Seras ca ñoom Baye Fall fa la ñuy jaar wala Imam Fall waa ji jógee euh, Padois ñëw ba ci rond bi wëriwu ko de mu jaar ko góos waaw fël jàkkaarloog man cettt jayti ji mel noo xam ne kenn mësu koo gis waaw <laughs> mën na ko niire ngeen di def bay rey ustaas si jàmbur yi waaw <laughs> waaw tabarkal ci waxin waaye mbokk yi ku jóge ci koor gi alxurumaatu xisaas xurum mooy ku ne ci nit ñi danga am sa moomeelu bopp a shahrul xaraam bi shahril xaraam wal xurumaatu xisaas xurum mooy ku ne dangaa am loo moom tàmbalee ci sa jëmmi bopp ji jaar ci sa oto bi sa kër gi sa sa sa ba ci sa buntu kër gi waaw ba ci sa circulation bi ba ci sa bureau bi maanaam nit dafa am yoo xam ne def daf leena moom xurum yooyu nag sunu borom nee na ku ci dugg nañ ko yëgal ne dugg nga ci xurumi jàmbur waaw wal xurumaatu xisaas wal waaye bu fekkee kum neex dugg ci xoroomi jàmbur te doo dara du la ca fekk fekk terrain jàmbur nga tabax ca waaw fekk buntu këru jàmbur nga gas ko waaw fekk mbeddum jàmbur nga baas ko xurumaat yi kenn du jal jàpp ci loxo kenn naan ko lii moomoo ko yàgg ñëpp a ko bokk déedéet dañ jàppan rek ni léegi daal lu neexu waaye fu mu ko neexeek nu mu ko bëgg noonu la koy defee suñu borom nee na su boobaa impact yi koor war a def des na lu baree baree bari wal xurumaatu xisaas hmm? waaw waaye mu te ci lu solo fa man ictadaa alaykum faataduu alayhi bi mithli ma ctadaa alaykum ku tooñ fayul leen ko fayu gu tol ni tooñaange gi allahu akbar ku tooñ fayul leen ko maanaam ku ñu tooñ fayul leen ko fayu gu tol ni gi ñu ko tooñ allahu akbar fa ma ni dëgg rek fa man ictadaa alaykum factaduu alayhi bi misli ma ctadaa alaykum waaw waaw tabarkalla ku ñu yàq otoom fayul leen ko hmm? ku ñu yàq këram fayul leen ko waaw ku ñu yàq mbeddam fayul leen ko ku ñu yàq ku ñu yàq rek na fayu ga tol ni tooñ na fayu ga tol ni tooñ nga wattaqullaha ragal leen yàlla yéen ñi tooñ wattaqullaha ragal leen yàlla yéen ñi fayul kiñ tooñ waalamu anna allaha maa almuttaqin te xam ne yàllaa nga ànd ña ko ragal yàllaa nga ànd ak ña am jom mbokk maa ngi lim impact yi koor war def ci ñun ndax def na ko ci ñun question bi lañ leen di delloo yéen way déglu yi sunu borom jeexal ci yooyu nag wala boog teg ca beneen wa anfiqu fi sabilillah wa anfiqu fi sabilillah ku jóge ci koor gi rek war ngaa tàggoog nay waaw ku jóge ci koor gi koor war na laa jàngal ak tabe ba nga mën a dépenser fii ba nga mën a dépenser sabilillah maa ngi dégg sëñ Mbàkke ci fan yi barki démb mu nekk ci kabaayir yi ba toll ci ñàkk a joxe asaka ba ci wax lu mel noonu ma ne ko dëgg la boo yëkkatee sa xaalis di def fii sabili seytaan seytaan daf leex defal bañ xam yaay kan boo ko bëggee def fii laa mu ne la ñii ñëpp kenn mu leen a defar waaw boo fekkee fu ñu ndagar wala ka taasu mu la joxeel ñu xam yaay kan boo fekkee fu ñu jàngal alxuraan ñoom seen yooyu loo fa def mu yéem ko loo fa def rek mu yéem ko waaw nga ne damaa yor sama fukki million dama ko bëgg jox Alioune Sall fukki million dama ko bëgg jox Alioune Sall seytaane la lay <laughs> yow kii nga xam ne 4 lay war loolu lay wax sama 4 bi la lay wax seytaane kii 4 lay war te boo demee daara ji da ko kar la ca ba ci suuf loolu la lay wax de yow nga dégg ñu jox ko fi daara barab sàngam jox ko fi daara maanaam di la limal lim am waaye bu dee ndagar wala kat boo xam ne bi wax waxuma la lim am waaye lim am fukk ci na ak juróom li Alioune Sall am seytaane du teemu na la jox ko bañ xam yaay kan moo tax jox-jox yi boo demee fa ñuy joxe waaw boo demee fa ñuy joxe bu dee fii sabilillahi mën ngaa wax wax wax ba sonn waaye bu def fi sabili seytaan jërul wax walaay ndeysaan jërul wax seet tit mu ngoog fee dégg naa dafa am batterie waaw léeg-léeg nga siin fi fi xaaj bi tegee kenn du xam lu mu talu ñu nekk fii rekk ci tal bi yeeg yalwaan meeg nangam nangam te li ko fiy jële yomb lool lu ko fiy jële waan fi xoo fi sabili la loolu moo ko fi jële projet yàlla yi yàlla mu ne financé leen ci wa anfiqu fi sabilillah ah bon waaw loolu rek moo ko fi jële cey bu gone yi jàngale alxuraan amoon foo xam ne ku xëy boo fa demee fekk fa jàngalekat mu toog booy wàcc bàyyi ko fa boo gontu see fekk ko fa booy wàcc bàyyi ko fa kon de léegi te yalwaan mu jóg ci pénc bi maa la ko wax de waaye nag comme dañ laa bàyyeeg sa bopp wa anfiqu fi sabilillahi amut projet yi fi yàlla am kenn du ca def poros yi fi seytaane am ñëpp di ca def waaw tabarkàlla nit laan waxtaan wa maag benn jullit bu jegoon Palestine aj si Makka nu daje ca al al al xar waaw tabarkàlla al makki di waxtaan waxtaan wa tabarkàlla sori bañ agsi ci kadxalukum wal mashruaat al mawjuda fi biladikum mu ne ajaban ndeysaan ajaban waaw mu ne ha mu ne ma ñoom dañu am benn proche boo xam ne bii euh, cent millions moo koy defar ne waaw mu ne ma dana fa am fukki at du pare ndax ñii mille francs la ñuy joxe ñii cinq cent la ñuy joxe ñii pièce la ñuy joxe projet ba nekk fa rek mën a ko waaw mu ne ma ñi nga xam du ñu ay palestinien wala palestinien mais ay yahud la ñu bu dee cent mille lañ am projet mën a ko waaw mu ne ma kenn a koy financé benn personne seul mën ne ko xëy na ñee dañoo amut mu ne ma ñoo ëppale ñee wala am nañ lu toll ni ñoom waaw loolu rek la maanaam dañ koy ñéeb ñii ba def ci yëf yi ndax formation bi ñuy forme jullit orientation yi ñu koy jox technicien tuyaaba ji jox ko ko day tax leeg leeg yëkk ci lu am solo joxe ko ci du leen yomb waaw nettali woon naa moos discours sëñ Isxaaqa Mbàkke bi ma defoon fële ca vie ko jëm ci wàllu mashruwaat yi projet yooyu nun koy financé ala kulli xaal yàlla nee na ku war ba pare dana mën a dépenser fii sabilillahi ci projet yàlla yi hum waaw projet yàlla yi du jàkk képp deg jumaa de déedéet projet yàlla daa war a àgg ci centre médical daa war a am centre social daa war a am dispensaire bu ma nee am hôpital mu am yëpp daa war a am daara am ju moderne waaw daara yi am oto yuy jël si gone yeeg di leen yóbbu pourquoi pas nit ñi lu tax luñ def seen xaalis yi foofu waaw jërëjëf euh, euh, Ablaye Dia waaw merci beaucoup et félicitations waaw musaabaqa quraan yi mi ñuy def nii muy njàngum alxuraan bi concours yi macha allah hayaka allah waaw wa akramaka du courage et félicitations <laughs> loolu la de ndax ku financeel yàlla affaire yi dem ku ko financeelul affaire yi dem Serigne Cheikh nee bari bërigo la bu deful dara te bërigo bi encaissable la te mu ngi ci kaw mi ngi ci descente bi nee na bëriŋ mu dem bëriŋul mu dem nee na ku am sens nag dangay jël sa loxo teg ci <laughs> teg ca kaw bi ca ca ca kaw bërigo ba nee na bu tarxiisee nga yëkkati sa loxo euh, ne am naa victoire loolu rek la ndax ab joueur lu mu yaafus yaafus bu duggee ci terrain bi équipe am gañe rek noo gañe lay wax noo gañe lay wax waaw tabarkalla wa anfiqu fi sabilillah waaw dépenser leen ci yoonu yàlla mbokk yi bind bi jeexul dañoo ak fi dañ ko war yëkkatee buñ dégloo bindub àjjuma déglu bu samedi déglu bu dimanche danañ ci dellu si tabaarakallaah ci wala tulxu bi aydiikum ilaa tahluka ak itam wa ahsinu door a dugg ci aj màkka insha allah jërë ngeen jëf ak suñu for a yëkkatee jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i këyit bëgg leen a firiñ fànc la xibaar tubaab firiñ fànc leen ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor yi C3S ak ñu ko fekk si yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara nan la ci loon ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune sal in uridu illa al islaaha ma tatatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu